may ma benn kàddu rek. Eh, boole naa laaj bàll mi. waaw léegi bàyyi niis. waaw wax ci màggal gi waa at ñëpp ngi lay seetaan sant rek di sant ñi nga xam ne samay mbokki taalibe la xam ne xelu ñu ànd yow li jàppale la ci ngir jëmi borom Tuubaa. ñoom ñi yàlla ñu fi yàgg ànd ak sëñ Muntaxa ak mboolem jullit fi taxaw rek yàlla sa yëkkati ko dootul wàcc ci barkeem Nooru Daarayni. amiin amiin amiin amiin amiin amiin maanaam sëñ Baara Jenn nag looñu ci mën a wax. maanaam damaa bëriwut lu may kii noonu man li wax toujours mooy jàpp benn fonk yëpp jëfe ndigal bàyyi nan defar jikko yi nga bu suñ jukki yi. Hmm. buñ ko defee luñ ñaan yàlla may nañu koo may macha allah macha allah Cheikh Mountakha yaa ngi ci màggalu sëñ Bara Dieng gi fii si kër Baye Niis maanaam xam ku la gis li muy a def mooy ñaanal nga yàgg fi loolu te wér ngay def ci liggéey sëriñ bi nañ ci nga mbokk yi lay ay rek ñu dégg ko allah. <laughs> mooy rek <laughs> santaat yàlla daal ci dogal digal yàlla dogal na fekk ko te ñaan màgg bis bi ak mbooti bis bi ak jëmm yooyu ñuy tudd borom tas na ci barkeem te yokki leeram ah, sëñ ministre bi nga xam ne moom ba doon fekk si fii li ma ko waxoon léegi rek moom dama ko ñee daal waaw li ko ñee mooy moom koo gis xam ne murid daal ndax loolu laa koy xam loolu amu ko dëgg yàlla loolu daal laa ko ñëwee. Eh. macha allah ah, ah non monsieur Sango moom ñaan rek rek. yàlla na yàlla dogal ci ñun. ñu ne dëgg dëgg taalibe Serigne Touba. ñu gën di gis Serigne Touba. jekki gi Serigne Touba. ñu ngi ñaan yàlla bu son dara gën a Serigne. yàlla bu son dara gën a Serigne. yàlla bu son dara gën a Serigne. liñ bëgg ci Serigne bi. loolu jar na ko gëstu sax waaye moom nag liñ bëgg ci ñun yàlla na ko am. waaw. li mu bëgg ci moom loolu jaralu ko jaralu ko geesu sax waaye nag li mu moom nag am na moom sëriñ bi yàlla na am loola looloo jafe waaye ni ma koy waxee rek ci gars yi ngeen jërëjëf sëriñ Tuubaa day na koy wax ndax war nañu ndax defal nañu nañu ko sante waaye nag si liggéey bi nekk dëgg-dëgg mooy ndax ndax ndax ndax moom defal nañu ko lu mënu sante moom waaw foofu liggéey bi ne